asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit na mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réewum senegal ak bitim réew waaye bu ngeen gisee jataay bi xam ne tey ñoo ngi fii ci Daaru Jóob di dëkk boo xamante ne bi dëkk la ci dëkki Sëriñ tubaay waaye dëkk la boo xamante ne bi bu ñu ko tuddee xel yi dana dem ci jàmbaaram jooju di Sëriñ Masamba Jóob Sàmm ñu dëgmal nag bisam ndigal li bàyyikoo ci sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général kulu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak si ci sëriñ Abdourahim Diop mi nga xamante ne bi moo nekk ci boppu njaboot gi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak mbooleem njabootu sëriñ ma Massamba Diop Sam waaye xam ngeen nag wisaaroo ci mbooleem ëtt wala kër sëriñ Massamba Diop Sam loolu la tax na tey jii ñu fa yéene yëkkati ay kàddu ngir fàttalante ak jullit yi rawatina taalibe yi jàmbaar jooju nga xamante ne bi lislaam yëpp ñoo ko bokk yoonu mur yëpp ñoo ko bokk mu di sëriñ Masamba Diop Sam bis boobu war a doon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier waaye dëppoo ak dimaas kon ñu koy fàttali mbokk yëpp. ci kaw loolu nag daañu yëkkati kàddu gi jébbal ko bàyyi saal Mbay waaye danañ ko jox sëriñ Amsatu Lëy danañ jox kàddu gi tamit sëriñ Abdoulaye Lëy di chef de village bi waaye dinañ jébbal kàddu gi sëriñ Abdou Karim Diagne di vice président daayira bi waaye jébbal ko sëriñ Cheikh Lëy soo ko yëkkati nag jébbal ko sëriñ Amsatu Diop su ko defee mu tëj jataay bi. ci ndigalu sëriñ bi ñu diggante daje ca bis ba dem soob na suñu borom kon ñu jox kaddu gi euh, sëriñ Baye mbay Mbaye barke Cheikh Massamba Diop Sam jërëjëfa Cheikh Massamba Diop Sam jaraw lakk Cheikh Massamba Diop Sam mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ki nga xam si ni mooy xalifab sëriñ Touba muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool di ko ñaanal ki nga xam ne si mooy Cheikh Abdourahim Diop di xalifab sëriñ Massamba Diop Sam sunu borom defal ko ko barke sëriñ Touba waaye nag di ko ñaanal waa kër sëriñ Massamba Diop Sam gépp mu mel ni tey képp koo xam si ni jàkkaarloo nga ak ñun fii ci dëkk bu tedd bi muy Daara Diop di nga xam ne si ni suñu bis bi nga xam ne moom lañ daan waajal egseeti na bis boobu mooy ban bis mooy bisu sëriñ Massamba Diop Sam waaye nag ñan di ko amal muy déyëre sant sëriñ Massamba Diop Sam ci njiit li sëriñ Cheikh lay ñu ciy woo ñëpp di ci soññi ñëpp di leen ko yëgalaat di leen ko fàttaliwaat bu baax a baax di ñaan sunu borom yóbbuñu ci ci jàmm ak salaam ñiy profité nag di wax ni rafet na njorte ñi képp koo xam si teew nga ci bis bii di nga ci dajeeg sahaadatu daara ni bu Serigne Touba di nga ci dajeeg tawféexi Serigne Massamba Diop Samb ndax lépp loo xam ne si ni Serigne Touba am na ko xaasalaat na ci Serigne Massamba Diop sàmm ba mu doy sëkk ñu ciy woo ñi nga xam si ni ñooy waa daarul musi di ci woo waa daarul marnaan bu Serigne Cheikh Awa Balla di ci woo bu baax a baax ñi nga xam si ni ñooy waa Fass Touré di suñu mbokk di suñu mbokk taalibe di ci woo waa Touré Fass di ci woo ñi nga xam si ni ñooy waa Thielmaxa di ci woo waa Ndiagéen di ci woo ñi nga xam si ni ñooy waa Sombaldu di ci woo waa Diwaan Silla di ci woo Daaru Rahman muy daare Serigne Fallou Asta Dieye di ci woo Pëli di ci woo Naari di ci woo séeréer yi ak lawbe yi bàyyiwun kenn ñuy ñaan képp koo xam si ni ñëw nga fi lépp lu ci ma Massamba Diop Sam di faye yàlla nañ ci bokk wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi sant yàlla julli julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifatul xam suñu borom guddal fanam lool tam wér waaye di ñaanal suñu jàmbaar ji Cheikh Abdourahim Diop suñu borom yàggal ko fi lool ba li mu yéene ci naal wi mu àggale ko ni ko bëggee bu ngeen déggee kàddu yooyu nag comme ni ko sëñ Baye Sall géwul suñu Samba Diouf sa waxee rek mu mel ni kàdd yi woote la ak soññee rek bis bi nga xam ni dañ koo dëgmal muy cant suñu Samba Diouf Sam fii ci Daaru Diop ñoo ngi koy fàttali ñëpp di ñaan suñu borom eggalañ ci ak jàmm waaye mu mel ni bis boobu day bis bu rëy ci yoonu Njóobeen day bis bu rëy ci ñi nga xam ne ñooy waa Daaru Diop ba tax na saa yu dëgmalee dañ ciy woote li ci soññee di fas yéene lépp loo xam ne lu yokk ay yu ñu koy fàttali ñëpp kon bis boobu day sunu bis ba tax na képp koo xam tamit maanaam yaa nga ñuy lebal ca nga ñuy lebal képp ku ñuy fayet te nga ñuy fay kon ñoo ngi ci soññi ñëpp di ko fàttali ñëpp di xam ne ne maanaam bis la boo xam ni fas yéen fas nañ ko yéen a taxawee comme ni nga xam ni noonu la ñuy taxawee bis yëpp jàng alxuraan ak xasida te dundal ko ci sunna fas yéen maanaam daal mu nekk bis boo xam bis bi yëngal lay nekk ci wàllu diine ak lislaam ñoo ngi ci soññi ñëpp ni ko fàttali ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ko ne seen tur ak seen sant di leen euh, fàttali sunu bis bi nga xay moom la ñuy wax rek ñu ngi ci woo ñëpp daal fii ci Daaru Jóob ci woo suñu mbokki Daaru Musti yi sous-préfet ak euh, euh, waa mairie monsieur le maire Madiop bi tey ak commandant ak mboolem autorité administrative yi nga xam ñoo nekk Daaru Musti yëpp ñi ñoom la seqal arrondissement bi ñu ngi ci woo ñëpp daal chef de village yeeg chef de religieux yëpp daal ñu ngi leen ci woo ci bis bi di sa sàkku seen teewaay nag maana jëre ngeen jëf ansibillahi mina seytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare bu baax di nuyu mboolem képp koo xam ne si ne teew nga si jataay bi rek rawatina suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne si ne ñu ngi ci jataay bi di sëriñ sa Diop ak sëriñ sa Diop moom sëñ Mbàkke Jaara ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax ak sëñ Abdourahim ñoo ngi siyaare mbokki taalibe yi fi teew yëpp tey jégalu bu baax a baax ci kàddu yi ñoo xam ne kàddu yi tamit ni ko jëwriñ yi waxee rek kàddu soññee la ak fàttalite muy bis boo xam ne si ne bis bu màgg bun jub muy bisub sëriñ Masamba Diop Sam di jàmbaar yi seexul xaddim ja di jàmbaar yi sunu borom ja nga xam ne si ne dara ñoru ko woonu lu liggéeyal sëriñ Touba ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba li mu am si yoonu murid lépp mu am ko kon daal moom la ñu fàttaliku jaarale ko ci daayira bi nga xam ne si ne mooy daayira sant sëñ Masamba Diop Sam fii ci Daaru Diop ci ëttu Serigne Modou Diop Massamba di ëtt bu barkeel di ëtt boo xam ne si ne waa kër Serigne Touba yooyu yëpp ñi ci ëpp doole ñëpp teg nañ fi seen tànk muy daara joo xam ne si ne sëriñ Touba moo joxe woon ndigal li jox ko sëñ sàmba Diop Sam mu sanc ko sëriñ Ma Diop di ab taawam maanaam goroon goroon dëkk bi ba sanc ko ba tey ji ñu mën a taxawal liggéey bu am solo bi kon ba tax na bis bu màgg bu tedd boobu moom la ni fàttaliku le 27 janvier bi kon ba tax na ñoo ngi ciy woo njabootu sëñ Massamba Diop Sam gépp tàmbalee ko ca ba sëriñ Abdourahim jaare ko ci tamit ci daayira Mubarak bi nga xam ne si ne sëriñ Sam Diop moom sëñ Abdourahim moo ko jiite ak mboolem képp koo xam ne si ne ab jullit nga ab taalibe nga rek ñoo ngi lay woo ci bis ba tax na bis bi tamit moo tase ngëneel ngëneel loo xam ne si ne ak am solo gum am solo ñu tuddee ko jàmbaar joo xam ne si ne jàmbaar yi Serigne Touba la jàmbaari sëñ samba Diop Samb la muy Cheikh Abdou Samad kenn ku nekk xam na ni liggéey bi tey bu agsee fii jëmmi sëriñ Abdou Samad la mi nga xam si ne moo nekkoon ñeenteelu xalifa ma samba Diop Samb kon yaakaar naa ni ñi ngi ciy woo ñëpp bëgg ñëpp tamit teewe ko te xam ne si ne jàmbaar lañ ko tuddee jàmbaar joo xam si ne diine ak alxuraan ak bëgg lu baax ak liggéey sëriñ Touba rek moo ko moo ko ñor kon daal ñoo ngi ciy fàttali ñoo koy fàttali ñëpp di si soññi ñëpp rawatina ñi nga xam ne si ne ñooy jànkate alxuraan yi ñoo ngi koy fàttali njabootu sëñ samba Diop Sam gépp ak mboolem képp koo xam ne si ne yaa ngi dégg kàddu gi rek ñoo ngi la koy fàttali lépp loo ci mën a jàpp nga jàng lu loo ci man ci jàng xasida ak alxuraan nga def ko addee ma samba Diop Sam yéene ko yool bi ma samba Diop Sam ak Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne si ne moom lan tudde bi kon ñoo ngi ci soññi ñëpp góor jigéen mag ndaw bàyyiwul kenn bàyyiwun ñenn bàyyiwun fenn ñoo ngi woo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bisimilah asalaamaaleykum wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen baal àq di leen balu àq di jiital ci nuyoo bi ak ziare bi sëriñ Mahamadul Muntaxa Mbàkke saa borom yàggal ko fi lool te wéral ko nuyu ko siyaare Cheikh Abdourahim Diop xalifa sëriñ Massamba Diop Cham suñu borom guddal aw fanam lool te wéral ko ba naal yi mun naa la sëriñ mu àggale ko dem ko bëgge di ñaanal mboolem njabootu ma Massamba job Cham gi yëpp saa borom defal leen taw tawfiix ak i ngëneel ak fanu gudd lool ak sëriñ Massamba di ñaanal dayre bii di dayre sant sëriñ Massamba Diop Cham saa borom sàmm ko aar ko ba fi ñu bëgg mu àgg fa mu àgg fa di sant ak gërëm ñi fi teew ñëpp ci ndigalul sëriñ Abdourahim ak sëriñ Bassirou Diop xalifa sëriñ Mat Diop Massamba mi nga xam ne si tey sëriñ Mat Diop moom mi nga xam si tey moom lañ daalan fii ci Daaru Diop mu dëkk fi sëriñ Massamba Diop woon ko fi mu dëkk fi muy daara ba tey saabaram dogal ñu dem ba tey dëkk bi egsi fii ñu am màggal goo xam si ñu ngi koy amal at mu jot bu ma ko seet bu ma seetloo ñu ngi ko commencé wan defe naa 93 ak léegi boo ko seetee war naa am nekk ay vingt ans ban ko dalee def ak léegi ñaar fukki at ak juróom-benn war na koo jege ban ko dalee def ak léegi. ba tax na boobu ba léegi nag ak yokkate rek lañ ci gis ak jëm kanam at mu jot muy gën di yokk di gën a jëm kanam ba tax na kon Serigne Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am. te Serigne Touba lépp lu mu am rek seet na ci Serigne Massamba Diop Sam ba tax na kon noonu lay doxee fépp rek ci Sénégal ak ci Daaru Diop gi ba tax na ñu ngi woo ñëpp rawatina nag waa Touba Mbacke. ndax képp koo xam si rek saa dafa dogal nga fekk baax fii ci Daaru Jóob ah dëkk Touba ñu ngi lay woo ci bis bi te di la fàttali bis bi te di leen soññ ci li nu dëgmal te di leen fàttali ci li nu di leen xamal di soññ itam waa Italie di leen sant ka gërëm ci njiitu sëriñ As Diop ak Cheikh ak ah, sama nijaay Cheikh lay belal ak sëriñ Gora Diop ak ñi nga ak xam ni ña fa nekk ñëpp daal di doomi Daaru Diop ñu ngi leen di sant di leen soññ bu baax a baax di soññ waa Argentine ci njiitul Serigne Ngagne Fall ak Serigne Gora Seck mi nga xam ci tey jii lii moo ko waral ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal saa borom guddal o fanam wéral ay cëram ba la nga xam ne si naal ko ci dëkk bi mu àggale ko ni mu ko bëggee ba tey lii muy def mu nekk ab télévision di santit waa Afrique du Sud ci njiitul Serigne Ousseynou Diop ak mboolem njabootu Daaru Diop ga fa nekk gépp ñu ngi leen di woo di woo waa Côte d'Ivoire waa France waa Espagne fépp foo xam ne si daal njabootu Daaru Diop ñoo nga fa ngi leen di woo te di leen soññ ci liggéey bi di sant waa dëkk bi itam ñu di leen ñu teeru gan ñi tëral leen ca xam ni aw gan moom soo ko amee da nga leen di yaatal yaatal sa kanam ubbi sa sa kanam wàcc say lal jox leen boo ko defee rek wàccoo nga ak ñoom loolu daal mooy li nga xam si daal ñu ngi koy sàkku ci ñëpp di woo waa Darou Mouhty di woo mboolem julit mboolem talibe fu mu nekk rek ñu ngi leen di woo comme noonu ko Cheikh Abdou waxee rek mooy màggal gi ñu ngi ko darajaale Cheikh Abdou samat di juróomil xalifa Serigne Massamba Diop Sam te tey jii fo dëkk bi àgg fu dayre bi àgg rek jëmmam jooje mën nañu moo ko fa àggale ndax ban koy door ay boyatu sukkur lañ daan jox ak ak ak paquet attaaya ñu koy attaaya ba tey màggal ga egsi fii mu ñaanal ci ba tax na kon bis bi buñ ci àggee danañ amal njàngum alxuraanul karim ci suba gi ka koy jiite moo di sëriñ Siidi Diop moom ibnu sëriñ Thierno Diop ak sëriñ Maam Mor ak sëriñ Mbàkke Diop moom sëriñ Xaadim Diop ah buñ ba nga xam ne si julli nañ timis ba noppi danañ fa amal benn cérémonie religieuse boo xam ne si danañ fa toog mbooleem kilifa yi njóobeen yëpp teew ci bi ñu amal fa waxtaan woo xam ne si dañ ko jëmee ci Cheikh ak loo xam ne si defe na ko ci dëkk bi loo xam ne si daal lu am solo la ci dëkk bi bu ci loolu jàllee bu ndewee ba guddi gi dana si amal benn waxtaan boo xam ne si sëriñ Maam Mor moo ko fay amal ak sëriñ Mbàkke Diop bu une heure jotee suñ demee ba deux heures kuréelu Daaru Diop bi dana fa yëngu muy kuréelu xasida bi nekk ci dëkk bi suñ demee nag des si guddi gi sëriñ Mahamadul Mara Cheikh moo koy àggale moo ko fas yéene àggale ba ba set ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp di woo góor di woo jigéen di woo ndaw di woo mag ñépp ñu ngi leen di woo ñaan saa borom defal ñu jàmm ak xéwal ban fekk ko ay ati at teewe ko ay at barke Cheikh Massamba Diop lépp loo xam si def nañ ko ci wala ñu liggéey ko rek saa borom nangu ko te boole nag ngërëmu sëñ Massamba Diop Sam di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu aouzu billahi min asheytan arrajim bismillahi rahmani na ko yaa muhin wa bika nastain yaa yafqahu qawli kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah qaala ta'aalaa yaa ayyuhal laziina aamanuu ittaqullaah wabtaquu ilayhil wasiila wajahiduu fii sabiilihi la'allakum tuflihuun qaala ta'aalaa aydan wal 'asri innal insaana lafii xusr illal laziina aamanuu wa 'amilus saalihaat wa bi xaq wa tawasaw bi sabr mbokki jullit yi mbokki taalib yi fi daje te barkeelu ci diine lislaam dajale nu kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu te di la siyaara te di la masawu coono nuyoo bi ak siyaar bi ñu ngi ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam si moo fi nekkal Xaadimal Mustafa ak sëñ Abdourahim mi nga xam ni moo fi nekkal sëñ Massamba Diop Sam kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu te di la siyaara te la jot li itam siyaare mbooloo mi ak di siyaare sëriñ Amsatou Diop mii moom sëriñ Mbacke Diarra ak sëriñ Abdourahim mii ak mbooleem ñi nga xam si ni ñoo fi bokk nekk te jiital ci biir mbooloo moomee télévision bii nga xam ne moo di Touba Argentine kenn ku ci nekk nag ñu ngi lay nuyu te di la siyaare te di leen masawu coono te di leen yëgal itam bis bi nga xamee se mooy bisu Serigne Massamba Diop xam naa ñi fi jaar ñëpp kenn ku ci nekk li nga ci wax mooy noonu rek. wante li ñu bu buñ ko sàmmee te taxaw ci am ci pas-pas yàlla mën na noo defal tawfiq ndax suñ borom subhaanahu wa taala su dee giñ ci takkusaan ni nit ñëpp perte nañ adduna si di rëg-rëg yi kenn ku nekk xamatoo foo jëm mu jekk-cekki ni xëy ñu taxaw mu setti leen ni ëllëg la si na amono wa amilu saalihaat ndere ña nga xam ne gëm nañ tey jëf-jëf ju yiw wa tawasaw bil xaq na di dénkante ci dëgg watawaaso bi sabri te gi di muñalanti leen bi tis yaa li si na amano bu ko sunu borom dee wax ñi gëm ñooñ loolu la ñooñ la engagé waaye ku gëm nag loola ñooñ loolu engagé wu la ndax bu jukkoon yaa naa su la daan wax waaye yaa yaa na amano boo ko déggee rek na nga xam ne suñu borom ñi gëm moo tax ñu koy wax comme nag ñu ñii suñu jëm bopp xam na ni ànd ak xaadimul Moustapha ngëm mënu koo gën a kawe ngëm mënu koo gën a euh, rafet ya njort ngëm mënu koo gën a ëpp yaakaar itam ba tax na kon nag ñu ngi sant ñëpp di wóolu ñëpp di yaakaar ñëpp di am taxawaay ak pas-pas ci bis bi nga xamante ne si ni moo de sant Serigne Massamba Diop Sam ndax jaam bi nga xamee si ni toog na ba yëg li nga xam si ni ab sangam defal na ko ba mu yëg ko ba toog benn bis xalaat ci jëmi boppam ni daa war a sant jaamam sangam boobee kon nag mbooloo mii nga fi xam ni teew nañ fi. dëkk ci daar Diop ak li wër daar jóob yëpp ak taalibe yi nga xam xamante ne si ñu ngi ci bitti réew ñëpp sant sëriñ Massamba Diop bi nga xam ne si moo tax ñu di ko def xam nañ la leen sëñ Massamba Diop defal xam nañ itam fan féeti sëñ Massamba Diop xam nañ itam fa sëñ Massamba Diop am taxawaay ci digganteem ak sëriñ Touba kon nag taxawaay boobee ak bis boobee ñu ngi ci woo ñëpp képp ku mu mën a doon ku nekk foo mën a ne boo dee dégg suñu kaddu ñu ngi lay woo ci bis bi bis bi nag mi ngi tolloog euh, ñaar fukki fan ci weeru wolof di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tubaab kon nag képp koo xamante ne si ni dégg nga woote bi ak foo mën a ci li nga xam ne si moom la doon doxee fii ci dëkk bi yitteem yëpp mooy liggéey ak jaamu yàlla loole nag ci la dëgëlan ñëpp ba ci borom kër gii ak ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Diop mi Abdoulaye Lay mi ak mbooloom ñi nga xamante ni ñoo fi teew ñëpp. taali bi yëpp kenn ku ci nekk xam na ni sëñ Mat Jóob amoon na pas-pas ak taxawaay bu mat sëkk ci wan la ni ni jaamoo yàlla ci wan la ni ni liggéey li sëriñ ba kenn ku ci nekk am na ci taxawaay ak pas-pas bu mat sëkk ba tax na kon nag ñu ngi woo ñëpp di séentu ñëpp di yaakaar itam lépp lu nga xamante ne si ni bis boobee ëmb na ko ci aw yiw ci barke ci sutura ci tiraanga ci liggéey sëñ ba sëñ nangu ko loolee ñu ngi ciy ñaan sëñtuwaa mu tëbb nu ci ci biir ci saaxir tëbb ñu ci biir ci baatin alxuraan ji nga xam si moom lañ fay jàng ak xaside yi fi nga xam si moom lañ fay lépp ñu ngi koy da ñu ngi koy def ndigal ñu ngi koy def euh, ci barkeb sëñ Massamba Diop boobu lañ ci jubloo itam mooy sëñ Massamba Diop yàlla yokk leeram yokk leeru ñi nga xamante ne si ni ñoo ko jiitu woon ak ñi topp ci ginnaawam yëpp te kenn ku ci nekk na xam ni liggéey sëñ Tuubaa day moom mooy amee tey mooy mbay ndam ëllëg képp koo xam si ne am nga pas-pas nag ci liggéey Sëñ Tuubaa ak foo ko mën a liggéeyee na nga xam ne yaa nga ca waar wa nga xam si moo tegu ci kaw yoonu kon nag ñu ngi woo ñëpp di yaakaar ci barkeb Sëñ Tuubaa yàlla defal na ci ndimbal defal na ci tawféex defal na ci pajuk aajo asalaamaaleykum kullikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Amsatu kon nag mbokk yi bis baa ngi noonu war a nekk dimanche di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier ñu jagleel ko jàmbaar l'islam jooju di sëriñ Massamba Diop Samb ñuy sant nag mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo ñuy bàyyi xel jamono ji waaye mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi ku ci mel ne sëriñ Amsatu jóob moom sëriñ Mbàkke Jaara sëriñ Amsatu Diop moom Baye sëriñ Diop waaye sëriñ ab sëriñ Abdourahim Diop moom sëriñ Murtada ak sëriñ Jili Diop sëriñ Mbàkke Diop moom sëriñ Jili waaye sëriñ Mamoor Lay sëriñ Daara ak mboolem ñi fi teew rek bu ñu limee njumte mën nañu cee fekk waaye daal mbokk yi bis baa ngi noonu ñu jagleel ko jàmbaar lislaam ci ndigalu Serigne Mountakha jaar ci ki nga xamante ne bi moom moo di Serigne Abdourahim Diop nekk ci boppu njaboot gi war a nekk dibéer euh, di ñaa fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ku lay di nga dala xamul bu la xamoon dalay jëfal billaahi yàgg nga bégal muriti seex Masamba Joob